Euh, dalalaat euh, ci bi émission bi euh, maître Abdoulaye Babou avocat à la cour ancien ministre ancien député ancien président de la commission des lois ci nguur Abdoulaye Wade nag bëri na fi ay fonction waaye defe naa fonction yu yu mu am yëpp bëgg ci gënal mooy mooy avocat ndax mu gën leen a mën a défendre donc euh, euh, moom laa am mbégte dalal tey ñu fas yéene nag waxtaanee euh, li xew ci réew mi ah laaj ko ci xalaatam mais surtout laaj su laaj ko mu tojal ñu yenn yi nga xam ne nun xëy na dese nañ ko xam lu aaju ak li xew assemblée ak ñoom seen doxalinu réew meek yi ni mel. Euh, lépp nag ñu defañ ko nag ci euh, feebar bi lëmbee jamono muy euh, corona bi nga xam ne fi mu ne dafa daanaka moo ŋànk pan bu yu bari ci ci àddina bi kon papa ginnaaw ba ma la nuyoo jaajëfal la am nag mbégte bu baax a baax defe naa ça fait de quatre ans <laughs> jàkkaarloo ñu euh, li ko waral mooy euh, xam nga rek nga nekkoon si dëj ma ne ma nekkoon si dëj mm. ndax euh, ki ñu ki fi jógee maman moo tax na ma danoon jafe si man ma jàkkaarloo waat ak yow mm. ndax macha allah sunu rendez-vous annuel yi moo ko daan organisé daf yu baax bu nu paree am fu ñu kii woon donc man ma en réalité mm. man maa préwul woon j'étais pas prête pour ñu ñu jàkkaarloo ñu ñu jàkkaarloo waat donc c'est le moment Euh, nga nangul ma ko tamit ndax maax euh, ah, yow dañu yàgg yaa ma yar <laughs> ma gërëm la sant la Touba nga jógee euh, fa nga fa nga fa sa bopp yàgg na mm-hmm. macha allah donc nga defal ma honneur boobu fajaru ñëw toog ñu waxtaan ndax nag réew mee la soxla te bu saa yoo la réew mi soxla nga teew ginnaaw ba ma nuyoo jaajëfal la ma bàyyi la nga nuyoog sénégalais yi seetaan sama doom laay wax de. Mhm. waaw dëgg la. xam nga li tax ma wax. xam naa bu baax. ndax euh, te jii muy mel ni soxna Degen teew na fi dëgg la dëgg la mama te billaahi teew na fi. dëgg yow Aysatu. Mhm. nañu daan demee. Mhm. mariste fu nekk. wallaay wallaay dëgg la yàgg na. yàlla def tam yàlla miy def lu rafet fekk ah. fi Mado. di doomu soxna Degen. ah. waaw li waa ji wax sama yaram ndaw na moo mën a boole. sama yaram ndaw sama yaram daw na. <laughs> dëgg moom fa mu nekk ak ka nga ñàkk yàlla na ñu xeppee àjjana. amiin yaa li nga wax dëgg la. Uh-huh. nit yi jamono ñu lañu. kon il faut ñu def yëfi jamono. dëgg la jamono di ko déranger. fi mu mm. nekk euh, jaxase xel yëpp. Mm-hmm. mooy feebar bii ñuy wax. dëgg te muy balaa. Mm-hmm. man ci sama gëm-gëm. ci yàlla la jógee. amul hasard. Mm. amul lenn lu am loo xam ni neexul sunu borom. dëgg la dëgg la sëñ Tuubaa ngi koy wax ci Masaalikal Jinaan. Mm. yàllaa ko indi. Mm-hmm. yàlla na ko teggi. amiin yaa rabbi bul fàtte ni li jiitu tam sunu histoire amoon na fi ay balaa. Mm-hmm. su ma remonté ba 1816. ah mais amoon na fi ay feebar. fièvre jaune. choléra amoon na fi. peste amoon na fi. indi ay musiba. d'ailleurs nit ñi xamuñu ku seen histoire wu euh, Sénégal. xam nga peste lu fi indi. quartier Médina bii tey. tudd Médina. xam nga lu ko waral ba peste amee. jaar port de Dakar ñëw. tubaab yi ñoom ñi ngi dëkkoon plateau. dañoo tojoon rajaxe. pencu lébu yëpp. confiner leen parce que le mot confiné boobu la xewoon mm-hmm. wàcce leen ci suuf mm-hmm. tudde ko Ponti village mm-hmm. noonu la avant Médina di am Ponti village la tuddoon El Hadji Malick moom ci boppam moo joxe turu Médina loolu histoire wu peste la naa fermé la parenthèse tey ñu ñëw di jànkoon teg lu métti mais ci fàttali itam Sénégal jot na xaw ñetti état d'urgence. 1968 ñëpp ko xam ñu juddul woon sax xam nañ ñu. mooy coowu étudiants yi. coowu ko indi diggante 88. di juuf ak ab lay Wade. ci la ñu defoon année blanche. ñu jàpp Ablaye Wade. tey nag pour la première fois ñu am lu tudd état d'urgence sanitaire musul am. Uh-huh. état d'urgence ah, musul am c'est la première fois musul am waaw. su ñëwee nag musiba bi mais normalement nguur mooy jël ay disposition looloo tax ñu dugal état d'urgence sanitaire mu jeex parce que douze jours la njiitu réew mi dugal lu bees loi boo xam ni danañ ci waxtaan mooy dem assemblée nationale ni nañ ko jox doole mm-hmm. doole joo xam ni mm-hmm. day boole ak bosom bi mu amoon exécutive mm-hmm. ñëw ci domaine de la loi mm-hmm. ñu jox ko dumtukaay yépp mm-hmm. mu ni ci loolu la bëgg a sukkandikoo pour xeex lii fi am looloo tax maa ngi nii loi bi danañ am temps wax ci parce que lu baree ngi ci waaw il faut nit ñi leeral ko voilà papa euh, euh, ni nga ni nga duggee euh, macha allah ci émission bi baax na li gën a tax sax ma ma sàkku jotaay bi mooy euh, justement pour nga jàppale ñu ñun ñii ñu comprendre euh, loi d'habilitation mhm. bi nga xam ne ci la président Macky Sall dëxëñ mhm. euh, état d'urgence mhm. sanitaire bi ndax sànq wax nga fi loo xam ne xëy na ñu bëri xamuñu ko woon bi ne xam nañu ne Sénégal dund na ñaari état d'urgence la lu li jiitu bi xamuñu woon peut-être ñu bëri réeré woon mbir ne c'est la première fois ñu am état d'urgence sanitaire ce qui est important donc du coup euh, man loi d'habilitation bi. Euh, mhm. laa bëgg papa. Mhm. Euh, nga faram-fàcceel ñu ko ndaxte yor nga document bi <coughs> léegi man sa sànq ci coulisse wax nga ma si yoo xam ne dëgg-dëgg mosuma ko dégg man. Mhm. dégguma kenn wax ko kat yi may dégg ñuy wax yëpp dégguma leen ñu wax. li nga wax ma bëgg na ñu baaxal ko Sénégalais yi. parce que ba tool yi bari na jàll na léegi. Euh, euh, ñu bëri bëgg xam ndax loi d'habilitation bi jaroon na ko ak jaru ko ak surtout lan mooy loi d'habilitation. d'accord voilà. Euh, indi naa loi d'habilitation mi ngi nii. Mm-hmm. damay wax loo xam ni itam su dee juum naa. Mm-hmm. wala fàtte naa. Mm-hmm. nañ ma ko. jéggal rëpp non non nañ ma ko fàttali. xam nga ah, li tax. foog naa ni. xaw ma ndax xam amoon na loi d'habilitation. Mhm. état d'urgence boobu. Mhm. xaw ma tam ndax 88 amoon na. Mhm. su dee am na ñu ko xam ñu fàttali mi ko. mais loi d'habilitation. su dee état day dox normalement. ku nekk ak sa pàcc. exécutif day am lu mu moomeel. législatif am lu mu moomeel. judiciaire am lu mu moomeel. état euh, loi d'habilitation mooy. jox nañu njiitu réew mi. Mm. parce que article 77 de la constitution moo koy wax. doole joo xam ni. normalement législative la assemblée ko moom. mais ñu ni ko puisque dañoo nekk ci situation bu xaw a doy waar. ñun législative dañuy jël ci suñu sañ-sañ. jox la ko. Mm. mais dañ lay votel mm. loi baa ngi nii. voté boobu. ñu woteel nañ ko président Macky Sall am lu bari lu nekk ci biir. ni ko jox nañ la ñun li ñu yeewoo assemblée nationale léegi yaa ko moom. Mhm. liggéey ci. Mhm. par ordonnance lay jël. waaw di ko def par trois mois. Mhm. li ñu gën a ràññee ci mbir mi. dañ ni président Macky léegi jox nañ la sañ-sañ ñun ci suñu li ñu yeewoo assemblée. lu aju ci économie. lu aju. ci budgétaire lu aju ci sécuritaire et cetera et cetera na mu gën a yaatoo ñun suñu sañ-sañ la woon léegi dénk nañ la ko nga booleeg li nga moom mais nag da nga koy def pour xeex lii feebar bi feebar bi jox nañ la diiru ñetti weer ngay jël ay ordonnance su jeexee mën nañu laa dolil mais ordonnance yi da nga koy ratifier donc léegi jàpp leen ni président Macky Sall liñ ko jox mooy lii benn moo nekkoon pouvoir exécutif ñëpp xam na ni moo ko moom mm-hmm. ñëpp xam na ni moo moomoon tam pouvoir judiciaire parce que mm-hmm. magistrat yi dañoo am kilifa goo xam ni président de la République leen mm-hmm. la ko dese woon ak néew nag jox nañ ko législative assemblée léegi jox nañ ko lépp ne ko mi ngi yaa moom yaay buur yaay bumi eh way malheureusement yaay buur yaay buur. mooy buur mooy bummi. léegi ma ni. Hmm. président Macky Sall. Hmm. mooy damel du mooy teeñ du Bawol. mooy buur Siin. mooy buur Saloum. mooy roi. du suy <laughs> ah dëgg la de. lii lañ ko jox amul lenn loo xam ni. sës na ko hmm. boole ci nag. sañ-sañ yoo xam ni même pour xeex kii bi. mën naa wàññi liberté presse. ni journaliste yemal fii. yemal nañu absolument mën na def ay internement administratif. moom mooy lan loolu. ah internement wàññi seen doole. mën nañoo jël nit assigné ko à résidence demal sa kër toog bul génnati def lii def la lu mu sañ. lu mu neex daal comme genre lu mu neex. moom la. on a mis entre parenthèses la république. lépp mi ngi ciy loxo président Macky moo def lu ko neex. loi baa ngi nii. mais mais mais mais ah. mais papa est-ce que est-ce que euh, li ko jox nii est-ce que méngoo na ak xeex feebar est-ce que est-ce que dépassé wuñu. man ci sama gis-gis ëpp na lépp lañ ko jox. ëpp na ëpp na. mais ña waroon a wax est-ce que wax nañu. mooy ña ñu waroon wax opposition bi. ana opposition. Sonko de mu bañ woo nañu leen ñoom ñëpp ñu nuy gombo. ah mooy mooy audience ya. Ah, est ce foofu naxu leen Macky naxu leen foofu papa. ah man nag li ma jaaxal mel ne ni ay nax la. Ah. ndax. waaw lim leen wax kaay leen. ñu def unité nationale. waaw pour xeex lii. pour mm. njëriñu Sénégal. Mm. ñëpp ni gongo mais est ce que xool nañ bu baax la ci nekk. ñu ñëw. Mm. ku nekk caméra yi toog. waaw nga génn taxaw nga génn wax. daa tàccu Macky Sall. tàccu président. waaw ànd naa moom. ànd naa moom. mais la nekk ci loi ba est-ce que xam nañ ko est-ce que ñoo ñu wax tey. ëllëg war ñëw mën a ñëw ni xaw ma ko woon. voilà. waaw parce que euh, après seen audience yooyu bañ jàkkaarloo noonu ñëw Macky na